عليك صلاة الله ثم le Président du mouvement Ritmal Monsieur les membres de la délégation du les enseignants et Madame les enseignantes, chers élèves, honorables parents et invités. Euh, xam naa je vais demander à l'inspecteur de déroger un peu à la règle pour euh, lire mon discours en wolof. d'abord sant yàlla bu baax a baax a baax a baax sant allah subhanahu wa taala julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa di delloo njukkal suñu sëriñ suñu njiit suñu wasila Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nga xam ne moom mooy parrain école bii may jël samay nuyoo jël nuyoo enseignants yi di jël nuyoo élèves yëpp ak parents yi nuyoo yi gën a sell di ko teg ci loxo xalif général de la Faydatou Tidiania Cheikh Mouhamadou Mahi Niass yàlla na ko yàlla yokk dal ay fanam te yokk ko wér di jël samay nuyoo itam di ko teg ci loxo Cheikh Tidiane Cissé di imam de la grande mosquée de Medina Baye di nuyoo aussi suñu président CGE suñu sëriñ maay mu bay mbay xam mooy xalif général bu euh, Kër Madiabel xam naa ne tey soxla boo xam ne bi mu mag moo ko moo tax mënul teewee bés bi waaye école bi jaral na ko lu nekk mu délégué doomam ji di Baye Mbaye ñas mu ñëw fee représenté ko wax fii wax yu rafet yi ñu ngi nuyu famille Medina Baye yëpp di nuyu muqaddam yi fi nekk yëpp ak boroom xam-xam yi fi nekk fàttewuñu kenn eh, di sant yàlla bu baax di sant ñu euh, ko nit ñëpp waxee mooy mouvement Xitmal Baye ndax douche yi comme ni ko suñu sëriñ aadi waxee ñu ngi daanu depuis août deux mille vingt et mu nekkoon événement boo xam ne ñun yàlla mu ñu may ñaan ndax bu fekkoon ne dafa daanu ci diggante année scolaire bi bon xëy na peut leneen lañu wax lu dul lii ndax dañoo jékki-jékki rek nërmeelu booba léegi nag ñuy wër partenaire bu ñu jàppale pour yëkkati douche comme ni ko sëñ bi waxee lu jot yomb yàlla boole ñu ak mouvement xidmal euh, bàyyi xam ni ne Cheikh Ibrahima Niass moo ko jiitee mu ñëw fomp suñuy rongoñ fomp suñuy rongoñ ci lu gaaw ndax bi mu ñu waxee dinañ tabax douche yi ak heure bi mu ko tabaxee ba ñu egg ñu ko Moussa Diallo waxee motul un mois di tax Maolana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima jël jumaa mu tedd bii samp ko fii école am daara arabe bi mu samp ko fële jël école français tam samp ko fii à quelques mètres de la mosquée kooku dafa amul gis-gis xamoon na ne àdduna ngi ñëw lu àdduna yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dana am dana am xam-xam yoo xam ne danañ ko war jàngale nit ñi dañ ko soxla àdduna bi yëpp moo koy soxla mooy lu ñuy wax les connaissances universelles la science et la technique tey amul benn réew du Japon du Chine du Inde du Amérique te xam-xam yooyu tant que maîtriser woo ko mënoo bokk ci développement mën nañu wax ne ñun réew yi nga xam ne ñoo dañoo néew doole loolu moo ñu tardeel gis-gis boobu la amoon la tax mu ne nañ jàng lépp boo jógee ci jàng diine bi nga ñëw jàng liy doxal aduna bi ñun nag yàlla dafa dogal ñu ngi koy jàng ci langue jàmbur waaye njàng bi yëpp benn la technique bi chinois bi di jàng technique bi japonais bi di jàng technique bi américain bi di jàng technique bi sénégalais bi di jàng benn la loolu ñuy wax des les connaissances universelles ñëpp ko war a jàng pour mën a développer suñu réew mun a doxal suñu réew Mawlana Cheikh al Islam ku fonkoon xam-xam la moo tax fu mu demoon ci ci ci bitim réew la taxoon ñu fonk ko mooy xam-xam xam-xam boobu nag moom la bëggoon taxawal fii ci Medina Baye ah ñuy ñax nag ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi muy ses petits ses fils et ses petits fils ñu jàppale école bii école bii école baatin la école baatin la ndaxkat kat chaque année ñu def ay résultats yoo xam ne dafay raw dafay daw suñ njort ma ci ci gërëm di sant suñu équipe pédagogique bi mooy jàngalkat yi fi nekk muy jàngalkat yu xereñ góor ak jigéen def seen kéemtalaayu kattan malgré malgré les effectifs pléthoriques parce que ñun tey boo xoolee école bi muy compter ay mille cinq cent élèves junni ak juróomi téeméeri élèves ëpp na ko boo xoolee boo divisé par douze classes classe bu nekk dana am en moyen cent vingt élèves cent vingt élèves muy deux cotes de soixante en moyenne xam nga loolu maître boo koy jàngale semaine presque dimanche lañu am dimanche mais lundi ba samedi dañuy jàngale loolu nag métti lool mais nag ay góor ak ay jigéen ñu fakk jàmbaar fakk tëdd lañu duñu sonn guddi duñu sonn ba bëccëg di rafetlu aussi taxawaayu CGE bi ci ay ñaan ci baatin muy Serigne mbay Mbaye ñu fàtte mukk ak ñu fi bàyyi muy Moussa Kébé mii ak euh, suñu papa yi bité yi nga xam ne lu école bi soxla ci wàllu matériel ñu ngi ci taxaw seen kéemtulaayu kattan di gërëmaat euh, mouvement Xidma Baye di gërëm vraiment seen président wax dëgg yàlla comme ni ko suñu président bi waxee tabax na douche yi boolewu ci wax boolewu ci bàkku boolewu ci lenn daf ko def rek te yàlla tax waaw ñu koy gërëm di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk leen yal na yàlla déwén ngeen yokk ba yëg ko école bi nag mu ko waxee am na ay doléance la première doléance mooy école bi c'est une grande école école la boo xam na tey su mënoon am extension bu ñu ko mënoon tabax en hauteur dina baax parce que dëgg la amuñu espace waaye nag fii bi asamaan si papa yi may loolu lay wax ñun ñoo ko moom. bon nag suñ ko mënoon ñu suñ ko mënoon tabaxal en hauteur dina permettre ñu mën fi am ñaari école primaire am fi maternelle am fi sax CM. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi fekk yëpp. Euh, man maay Imam Seck maa amee wàll liggéey bi euh, ci Xidmal Baay organisation ak wàllu social nga xam ne suñ président ba liggéey bi commencé daf maa woo ba ma woowee ne ma dama bëgg nga dem xoolal ma école Medina Baye bi dañoo wax ne douche yi yëpp dafa daanu ba élèves yi amatuñ fuñ mun a jëfandikoo ma ñëw ba ma ñëwee xool ko vidéo ko yónnee ko président wax dëgg yàlla mbir yi métti ko lool mu ne liggéey bii de bala maa am jàmm foofu ma liggéey ko nañ commencé rek comme que am nañu as tuut nañ commencé incha allahu yàlla dina ko mottali ci lañ ñëwee def euh, mool bañ moolee commencé liggéey bi wax dëgg yàlla mu gaaw lool kon président ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa itte waxuma la dara sax waaye itte yi ngay def ci liggéey nga xam ne chaque jour maanaam président dina ñëw xool liggéey xool fu mbir yi toll maanaam amul guddi amul bëccëg tukkiwutul dematul fenn te loolu yombul lombul ci ndaw Medina Baye boo xamante ni da ngaa war a dem. régler say mbir nangam ak nangam mu bàyyi itam yëpp ñëw di ñëw di teewee liggéey yi waaw damay wax ne école bu mel nii école na nga xam ne léeg-léeg nga dajeeg ministre wala maire bu ne la jàngee naa jàngee naa ci école bi waaye man damay wax ne tamit maanaam gàcce la nga dajeeg koo xam ne maire la wala ministre mi ne la jaar naa ci école bii léegi-léegi nga dajeeg euh, ministre mi ne la man kat taalibe bàyyi laa te fexeewoo maanaam euh, école yi nga xamante ni wala liggéey yi nekk biir Medina sa loxo demu ci kon loolu damay jàpp ne sa taalibe des na ñu leen oo nag yéen ñi nga xamante ni parce que waa école bi soxla nañ école bi soxla ay classe parce que xale yi jàngatuñ ak xel mu dal di jàng ci école ay miir yu xar mën ngaa toog mari day taane mu daanu xam nga ne loolu ñaaw la kon ñu ngi leen woo ñi nga xamante ni ay taalibe lañ ak ñi nga xam ne duñu ay taalibe te nekk ci gouvernement bi muy ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour Pape Mademba Bitèye Mariama Sarr yow mi nga wax mi nga xam ne ni chaque jour yaa ngi wax ne ci école bi laay jàngee ci école bi lay jàngee te gisuñ maanaam loo changé ci école bi loolu dafa ñaaw kon ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ñëw def seen loxo ci école bi parce que du du du njëriñi waa école waaye seen njëriñ la képp koo xamante ni def nga ci liggéey bii maanaam sa njëriñ la kon nag ñu ngi sant président beneen yoon di sant groupe bi yëpp di aas ndaw ak Jules mi nga xamante ne ñoom ñoo ma doon dimbale ci liggéey bi di taxaw heure bu nekk di def ay vidéo di yónnee fi liggéey bi toll. fu gannaaw li ñuy def mooy dañ leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ndax euh, lii bu am am na loo xam ne mën nañ ci nekk témoin ah di def ma interpellé ne ma école bi amul ay toilette bi ma ko waxee ma dem euh, ci xëy euh, association bi wax leen bi ma leen ko waxee vraiment à l'unanimité gars yi rafetlu ko mais comme ñun dafa am ni ñuy doxee. bala ñoo song dara il faut ñu toog waxtaanee ko parce que ñun suñu association bi ni muy doxee mooy nañ ko def bu nekk nañ ko waxtaanee ba pare la ñuy def. moo tax biñ ko songee mu mun a dem ci diir boo xam ne diir bu gàtt la parce que biñ koy song song nañ ko ak xol mais aussi song ko ak ay ndax ay taalibe ko song parce que boo déggee xidmaal baay ñu ñëw di tabax ay toilettes école boo xam ne laaj bi lañ vraiment foog naa ne suñu jaan na foofu. donc li ñuy wax rek mooy gën a ñaaxaat euh, élèves yi nga xam ne ñoo war dem foofu ci toilette yooyu ñu sàmm ko parce que ñun tey biñ ko tabaxee ba inauguré ko ba pare ko directeur ak ay élèves am je pense que ne pare nañ ci incha allah rabi mais projet yi ngeen wax aussi dégg nañ ko te incha allah rabi noté nañ yëpp te danañ demaat étudier ko incha allah suñ biir seet doole ji nga xam ne moom la ci xidmaal bàyyi mën ñu ñëwaat incha allah rabi wax ko mais suñu sañoon école bi benn école du ko daax ci Sénégal ndax ñun amuñ lu Medina Baye amul lu amul lu dul cheikh al islam bàyyi moo ñu gënal lépp bàyyi mooy suñu lépp suñ mbir yi dox yëpp Mawlana Cheikh al Islam la kon bu ñu sañoon vraiment école bi ñu ko tuddee mooy dàq ci Sénégal mais incha allah rabbi tamit lancé waale autorité yëpp loxo wan leen ne leen école bi école Cheikh al Islam mais lancé aussi appel doomu Médina yëpp wan leen bi école Médina la ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp parce que olof dane bay ci sawewu tàng nit ki lépp looy wax nan naan nañ ma ko def nañ ma ko defal dañ ciy jiitu donc ñun moo waral biñ toogee waxtaan dem ci xalifa bi mu jox ñu ndigal ba tey ci yu demee nii rek lañ nekk ci fan yu néew incha allah xam naa ne daañu ñëw invité waat leen ci yeneen inauguration yeneen classe yu ñuy tabax encore franco bi nga xam ne ussi Baye Niass moo ko doon boppam pour wan leen ne leen xidmaal Baye ci li muy dox lépp rek mooy loo xam ne rek Baye moo ko bëggoon ci dëkk bi ñu nekk ay ndaw nekk ay taalibe jàpp ne dañoo war a xidmaal Baye liggéeyal ko ci suñu doole mais liggéeyal ko aussi ci fukki dërëm yi ak juróom yi mais aussi ñuy wax ne somme montant global bi nga xam ne yàlla dogal na ñu dajale ko ci suñuy fukk ak suñuy ñaar dërëm ba tabax lii trésorier nee na mu ngi toll ci 1 million 700 mille. loolu nag bu mënee am c'est parce que dañoo àndoo te yàlla tax su mënee am dañoo àndoo ñun ñëpp bëgg Baye Niass mais aussi am ay défis yu nekk suñu kanam ne chaque jour rek bu ñu jugee dañuy dem ci lan luy ñoŋal Médina mais ci lan luy taaral Médina moo waral ñu nekk di def lii. inspecteur ñu ngi lay gërëm ci sa turu ministère ministère de l' mais di ko wax ne ko gërëm nañ leen sant nañ leen mais aussi bëgg nañ aussi tamit autorités gën a ñëw jàppale école bii nii aussi. mais ñun incha allah rabi daañu partenariat boo xam ne dootul toog ba abadan ak école bi ba nga xam ne lépp lu école bi di nekk incha allah kenn dootuñu jiitoo si ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu tous les membres de Khidmal Baye ci turu président Cheikh Ibrahima Niass mais aussi di gërëm bépp partenaire boo xam ne ñu ngi liggéey ak maa ngi am kontaan lool. ci fii ci ekool bi du nuyu ñëpp waaye di jiital ni ñëw suñ xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass al imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé du wax ne école bi moom yëg neen ne suñ école la ndax bés ma fi njëkkee ñëw dugg fii rek laa am lu ma fi yëg ma ñëw fekk fi nag directeur bu yaru directeur bu wàccee boppam boo ñëwee sax dangay ngay jàpp ne moom daanaka euh, kuy jàngale yi vraiment te loolu dëgg yàlla loolu lañ bëgg ci nit dafay wàccee boppam yàlla yëkkati ko kon ñu lay wax ne dëgg dëgg kontaan nañ ci yow. ak gardien bu nga xamante ni tamit fekk nañ ko fi moom i gardien bu baax la boo ñëwee daanaka. daf lay wan lu bari fii ci biir école bi war na ma yu bëree bari bëri yoo xamante ne gis naa ko fi ba ànd naa motion bi xool nañ ko ñu ngi ciy liggéey incha allahu taala am na mbir yu bari yoo xamante ne ñu ngi Kër Baye danañ ko fi def incha allah di wax ne rek kontaan nañ ci teeru bi kontaan nañ ci tatagal bi suñ xol seet na ci lool. damaa dem ba min école bi fu ne nii daanaka chaque jour sax naa fi ñëw xool école bi maa ngi tamit nuyu Baye Mbaye mi toog sama xarit la lool ak directeur bi toog ak waa Xidmal Baye yu ci mel ni cheikhu imam dëgg-dëgg liggéey bi ñoo ci jàpp son nañ ci lool ba lépp loo xamante ne war na ci Xidmal Baye ñoom def nañ lu ñu ci war di leen wax ne dégg neen li ngeen wax te incha allahu taala fii ay fan yu néew dana ñëw wax leen luñ ciy def parce que ñun buñ ñëwee rek dañu attaqué parce que ñun bokkewoon ñoo xam dañ ñëw du wax mu yàgg moo tax fii ak semaine wala ñaari semaine dana ñëwaat fii wax leen li nga xamante ni moom lañ fi def te buñ ñëwee rek danañ ko song mu jeex incha allahu taala kon ñu bañ a guttal ndax daanaka xaw naa guddi tuuti ñu emale ko fii rek di la ñuy wax jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum mbooloo mi euh, maa ngi nuyu délégué de quartier délégué quartier bi euh, di nuyu monsieur le directeur de l'école monsieur Abdoulaye Ba euh, di ngeen ma may ma taxaw tuuti si personnage boobu waaye dama koy tànk témoignage bi may si moom le directeur Abdoulaye Ba qualité yi ñuy xaar yëpp ci fonctionnaire gis nañ ko ci moom il nous donne satisfaction mais li ma gën a booleeg moom nekkul liggéey bi ñu sax ci wàllu administration euh, dafa nekk nit ku humble je a heureux d'entendre témoignage du président de Khadim notre am humilité nit ku simple euh, qualité boobu nekk qualité bu ma sopp si nit mais ñu am leneen aussi ñu boole te moo ñu gën a boole mooy la passion commune que nous partageons une passion commune pour la pédagogie et la connaissance euh, ma koy ñaanal yàlla may ko euh, mébét yi mu am si école bi mu yeggali ko si jàmm te xam naa ne su loolu rek oto bi école bi dina nekk une école de référence euh, au niveau de la commune de Kaolack. Euh, foog ma def si ñoom benn témoignage en de reconnaissance de leur mérite euh, maa ngi bëgg a xamal ñi fi teew ñëpp ne jàngalekat yi nekk si école bi ay jàngalekat yu am compétence lañu ay jàngalekat yu xarañ ñu mën seen liggéey ñu xam li ñuy def mais tamit ñu bëgg école bëgg seen métier bëgg xale liñ si ay questions pédagogiques yi si ëpp si école bi lay jógee et c'est toujours pour moi un plaisir d'échanger avec vous sur ces questions pédagogiques euh, enseignants yi fi dañoo am discipline si école bi la njëkk ñëw pour la première fois gis benn jàngalekat ba mu yàgg ma dem je venais d'arriver j'étais encore jeune boobu sigén nga xamagul weex ma laajte directeur bi fi nekkoon comme mag la ma ne ko waa mais directeur est-ce que xale mën naa wax mag ne da ngaa yaru c'était ici à mu ne ma waaw c'est possible surtout soo nekkee kilifa ma dem bi si moom mu ne ko vous êtes un homme bien élevé mosuñu ate inspection en tout cas ba ma fi nekk ba tey maa ngi sama huitième année benn problème boo xam ne si école bi Ibrahima Niass la jóge ci diggante jàngalekat ak directeur am wala diggante ñaari jàngalekat et pourtant je peux vous assurer que soo gisee ñu gën a sonn ba ñun fu ñu taxaw dañuy sonn suñuy wax sax la voix est li si ëpp ay problème yu mel noonu moo ñuy sonal mais Ibrahima Baye Ibrahima Niass école bi. école bu ñu noppal la c'est peut-être à l'image de ki ñu ko tuddee ak mu doon incarné euh, may nuyu le président de l'association Hitman Baye euh, moom ak les membres de son association ak tous les sympathisants de Hitman Baye di leen ñaanal yàlla mu gën a dëgëral seen taxawaay pour que seeni œuvre de bienfaisance gën mën a law da jot da egg fu sori sori parce que loolu ñëpp a ko soxla. l'inspecteur de l'éducation de la formation monsieur Souleymane Diop moom moo ma fi yónni ma teewal ko euh, muy mbégte bu rëy si man euh, li tax ma gën si beeg mooy c'est parce ci sama district la xewee zone bi nga xam ne man sama loxo lañ ko teg. Euh, ñaareel bi moom mooy relation particulière yi ma lié avec euh, l'école euh, Ibrahima Ibrahima Niass son directeur ses enseignants président yi ma fiy fekk yéen tout le temps alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana Muhammad ñi ngi sant yàlla gannaaw buñ sant yàlla junj yéen sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah ñi ngi di nuyoo xaadimi xidma Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu wax yàlla ñu ngi rafetlu lool seen taxawaay di leen gërëm di leen ñaanal yàlla boo baax tamit ci li nga xam ne tey jii nii wax dëgg yàlla école bi soxla woon na ko ci dem ci wàlla liñ def fii tey ci sunu si turu nu mouvement ci turu kaddu président bana d'élèves kontaan nañ lool ci li nga xamante moom la ñuy defal ndaxte li soxla woon nañ ko waay nag mbir mu nekke rek su borom ñëwee dafay mat ba borom ñëwee alhamdulilah loolu la sëñ bi di wax toujours mu ne lépp loo xam ne yàlla jegleenu ko nit fey ñëw rek du mat am kontaan nañ ci loolu bu baax baax ci li ñuy defal ne te ñu ngi ñaanal yàlla bu baax yàlla dimbale leen tamit yokk seen man-man yokk seen kàttan ndaxte lii lancement la rek ci école bi lancement la bu jëm ci école bi waaye lii du dara lu dafa defagum kon nag ñi nga xam ne ak yenn soxla yi nga xam ne tey jii wax nañ leen ko ñi ngi am yaakaar ne yooyu yëpp incha allah danañ ci taxaw kon nag ñi lay ñaanal yàlla bu baax yàlla yàlla dimbali leen yàlla suturaal leen dafa leen tawfeex ci barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu maa fi utu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Sëriñ Niass ndaxte lii nii mu jiiti nii muy président Palantir bi Cheikh Ahmad Dam Cheikh moo ko joxoon gannaaw ba mu wàcce liggéey Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ba mu ñëwee renouveler loolu tamit continuer loolu alhamdulilah boobu léegi ñi ci tànk yooyu ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci gannaawam ku demee ne Moussa Kébé ak euh, Cheikh Mahi Biteye ñi nga xam ne ñoo ko ut ci gannaawam saa su nekk rek lépp lu li xaw fii rek ñi nga koy informé pour jox ko li nga xam ne mooy xew ci école bi. amul dara loo xam ne nag am lu lu uute lu mu uute ci école bi ci ay xibaar ci ay loo xam ne yëpp dañ koy soxla li jëm ci wàllu école bi kon nag ñu leen ñuy gërëm di leen sant di ñaanu mouvement bu baax a baax a baax ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla yokku leen. dafa leen tawfeex tamit saa su nekk ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu kon ñu dajee bu am solo wax dëgg yàlla am euh, mbir yi dafa dafa dafa dafa wees suñ njortu moo tax ñu ngi leen di sant di sant euh, ñi nga xam ne teewoon nañ directeur beeg jàngalekat yi nekk fii yëpp wax dëgg yàlla am di gën a gërëmaat waa Xidmal Baye ci turu président ñu ngi sant ñëpp euh, macha allah di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw li ñuy wax daal mooy mbir yi du xaalis. ku foog ne mbir yi maanaam xaalis booy jël dajale ko la di ko liggéeyee maanaam mën ngaa yéexal sa bopp maanaam dërëm bi ñaar dërëm bi comme ni ko mag ñi daan defee moo Mawlana Cheikh al Islam nga xam ne ku indi dërëm ak ku indi ñaari junneeg ku indi euh, dix millions maanaam ñoom la emale nañ wax ne daal commencé daal moom mooy mbir mi ku commencé rek danga nga mottali incha allah ñi nga wax ne ñëpp nañ jug taxaw ci mbiri Médina yi parce que ñun ñoo ko mën a defar du keneen ku ñuy xaar pour mu jugee fa ñëw defaral ñu ko ñu ngi santaan ñëpp beneen yoon ngi leen di ñaan yàlla ñu yokk yàlla leen ci yàlla bàyyi la si yàlla ñu defaral école bi def si CEM def si jardin pour enfant yàlla leen yàlla jàppale daal alayka salaatullahi thumma salaamu